bool ñetteelug euh, mandat bi ki nga xam ni moom moo fi nekkoon procureur ca kër yi di Alioune ndaw daal dina ci addu moom nee na Macky Sall mënul bokk ci élection présidentielle yu 2024 ndax euh, moom euh, jàpp na ni kii di njiitu réew mi amu ca droit moom tamit daal dinay addu jëmle ci wàllug justice li ñu duppee indépendance de la justice ni ki démb la yëkkati yooyu kàddu dañ ci ànd ak Papa Balla Macky Sall amul droit daal di def ñetteeli mandat loolee di gis gi ki fi nekkoon procureur spécial ci CREI yi Aliou ndaw nag di dellu di xamle ne constitution bi leeral na mbir yi te njiitu réew mi Macky Sall war naa def kéemtalaay kàttanam ba génn ci génn gu mucc ayib. xam na bu baax ne amul droit am ñetteelu mandat constitution bi leer na nañ amul kenn ku mën a def ñaari mandat yu tegloo waxuñu sax ay waxu juróom wala juróom-ñaari at constitution bi dafa leer li gën nag mooy Macky Sall mu génn ci génn gu gën a rafet na li fi xewoon ak Abdoulaye Wade. ñu ko ci procès enrichissement illicite Karim ak ay ñoñam Alioune Ndao nag ba tey jii mbir yi naqari na ko tax na muy ñaawlu sax ñàkk war ma gi nga xamante ne pouvoir exécutif bi am na ko ci pouvoir judiciaire bi lee. la manière par mbirum jëlee gi ma jëlee ci boppu yi nag naam mosuma see àddu wante day tekki ñàkk war ma gi way politique yi am ci ñuy àtte li ma mënul nangu ba léegi kay mooy nan lan mën a ab juge ci diggu liggéeyam doon ko defee ni ko yoon santaane loolu day wane ne justice bi moomul boppam te dëgg-dëgg nguur gi ñemewul benn yoon justice bu njaaxaanaay wala justice bu moom boppam. ci mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr ancien procureur spécial bu CREI bi nangu cee àddu waaye nag li mu gis mooy yoon war naa def liggéeyam. su fekkee ne juge bi am na lu dëgër ne yóbbu mbir mi jugement juge du fond bi am na ay preuve ne viol am na na jël dogal bi war te mu bañ ci am benn pression sans subir ni d'un bord. mu doon koo xamante ni bëgg na lépp daal di dox rawatina ci wàllum justice bu Sénégal Aliou Ndao nag jamono ji mu ngi xaar lu bari ci indépendance justice boobule rawatina ci magistrat yi le moom Aliou Ndao nekkoon euh, procureur euh, près la yi euh, doon addu ci am ndaje moo xam ne ni UMS di union bi boot magistrat yu Sénégal ñoom ñoo ko doon amal ñoom sax daal dinañuy addu jëmle ci wàlluk indépendance de la justice ak yeesal ak fan yu sànni seen i gët la ñu bëgg moom moo ñuy taxawal ab conseil supérieur de la magistrature boo xam ne nii day moom boppam.